Euh, ñun dañu nekk dañu bokk ci benn mouvement bu ñuy wax Thiès action développement ci la ànd ak mouvement alpulaar yi pour euh, soutenir le président Macky Sall ak mouvement les amis de Mami ami Touré dooleel APR falaat Macky Sall léegi mu nekk coordination des mouvement de soutien au président Macky Sall. léegi bu ñuy def loolu aussi pour dooleel Macky Sall la ndax dañu gis Macky Sall ni mu commencé liggéeye ak li muy liggéey te nit ñi mënuñ ci teg seen bët mënuñoo xeppi pour xam lan la ñun ñi gis li Macky Sall liggéey ñun ñi ko faloon ba mu nekk président de la république moo tax ñu defaat ay mouvement pour xamal ni Macky Sall ñoo ngi taxaw ci wetam pour mën a ànd ak moom liggéeyaat pour falaat ko euh, ci tabaski bi la ñu ànd man. ak Ousseynou juuf ak Oumar Dem ñu liggéey ci liggéey bu am solo ak Malick Dieng mi nga xamante ni moo nekkal Mimi Touré à Thiès ñu liggéey fi liggéey bu am solo wax dëgg yàlla ñoo ngi sant aussi Omar Youm mi nga xamante ni moo nekk diggante Caajaay Mbuur ba Thiès moo ñu jàppale bu baax moo jàppale Ousseynou Diouf moo ko dooleel moo jàppale aussi le président Macky Sall ba nga xamante ni Thiès ku fi sonoon ci tabaski gi gis nga ci sa bopp def na ci dooleem lool lool wax dëgg yàlla def na ci alalam def na ci xelam Ousseynou juuf nag lépp lu mu amoon bokk na ko ak nit ñi ci tabaski bi dimbali na ñëpp képp ku amoon problème ci tabaski bi Ousseynou Diouf wàccee jóge Dakar ci la sa problème rek lee kon nag dañu bëgg ñun ñëpp ñu jóg jàppale Ousseynou juuf boole mouvement yëpp fédéré ko mu nekk benn ñu ànd ak mouvement yi ma lim fii pour dem seeti mouvement yi nekk biir Thiès yëpp ak li ko wër mu nekk mouvement national bu nga xamante ne nii door nañu bis ni ki tey pour mën a jàppale le président Macky Sall pour liggéey mën a fës pour ñëpp Sénégal ak li ko wër mën a xam li Macky Sall di liggéey parce que Macky Sall liggéey na lu nga xamante ne nii il faut ñu fësal ko wane ko dooleel nag Ousseynou Diouf mu mën a taxaw biir Thiès pour mën a fëlal fësal liggéeyu président Macky Sall. ndax loolu day wane ne APR a ngi def liggéey bi responsable ñu ngi def liggéey bi mais loo gis yokk ci doole daf ci am solo te Ousseynou Diouf dafa toog taxaw di yokk doole fu nekk ci biir APR fépp fu nga xamante ni xalaat na ni ma nga xaw a yëngatu rek Ousseynou Diouf teg na ci loxoom muy ci doole muy ci xelam muy ci alalam te it Omarium di ko jàppale bu baax a baax a baax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla fi mu jëm ragalatu fi. li ñuy ñaan yàlla nag mooy mu am lu nga xamante ni dina mënal demal boppam ba du dépendre ci kenn loolu daal la ñuy ñaan. Mhm. waaw ndax am ngeen message boo xam ne tey jii yéen ko jëmale ki nga xam ne moom mooy surtout fii si Thiès ngeen xam ne soxal na ko lool mais ba léegi mën nañ ne euh, Thiès moom defagu ko tegagu si loxo. Ah, ñun de ñoo ngi envoyé message Macky wax ko ni ko bu fekkee ni jël na Ousseynou Diouf teg ko ci wetam ak ñi mu àndal. Ousseynou Diouf juddoo Thiès yaroo Thiès màgge Thiès liggéey Thiès li mu am mu bokk ak xalaat naa ne li mu bëgg fi mu bëgg Thiès egg fa dina fa yegg ci kàttanu yàlla. Mhm. waaw ndax si jamono joo xam ne eh, problème leadership euh, tey tegg kenn tànnaat kenn du indi ay jaxasoo si bi parti bi wala dooleel la ngeen. dooleel la rek mënul indi jaxasoo bu fekkee ne waa parti bi ubbi nañ seen bët xam ne parti bi rek a ñor nit ñi. fii ci Thiès ñun parti bi rek ñu ñu ñor ñun commencé bi parti bi dooree ba léegi kon nag képp kuñ fi indi aussi pour dooleel Thiès la pour Thiès mën a jëm ci kanam la mais du pour wàññi kenn wala jëm parce que ñun ñëpp lañ tàllal loxo pour ànd ak ñëpp liggéey. Mhm. Euh, liggéey bi yéen xam ne ngeen jàpp ne tey jii bu ngeen fa jaaree euh, waa Thiès dinañu euh, gestu président Macky Sall ngir gënaat ko dooleel. bu ñu nemmeeku na département bi ñoom ñu ngi def ay jéego yu rëy. waaw parce que ñun waa Thiès ñun développement rek la ñu yëngu développer jigéenu cees jàppale jeunes yi jàppale infrastructure bi loolu rek moom la ñu mun a def dooleel nag wax dëgg yàlla néew ji doole yi jàppale nit ñi daal parce que Thiès metti na trop liggéey amu fi usine amu fi dara amu fi lu nit mën a teg loxoom moo tax dafa xaw a metti amuñu benn ressource. kon nag ku ñu dimbali Thiès euh, suqaliku bon loolu daal dina dina dimbali Macky Sall pour falaat ko bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ñàkk benn bi ñuy wax ci leader yi fi nekk ak yooyu ndax euh, yéen ay mouvement yu jóg ngir jàppale président dina yomb liggéey bi. ñàkk juboo moom ci leader yi bu fekkee ni dafa am man xeeb sa bopp la parce que ñàkk juboo kooku baaxul fenn. li baax mooy ñëpp war a mën a ànd nekk benn ñu dooleel mag Sall loo rek moo am solo parce que ñun ci loolu la ñuy dox ñun seetuñu leader nii ñëpp la ñu àndal ànd ak ñoom pour mën a dooleel mag Sall. Mhm. yàgg na tàmbali yàgg na tàmbali parce que action yi Ousseynou Diouf def ci tabaski gi joxe na ay enveloppe lu war a mat valeur bu millions joxe na ay xar valeur bu war a mat ay 2 millions 500 lépp génne na ko. te ci ak gannaaw ndimbalu Omarium ak yàlla moom loxoom rek moo ci dem kon nag liggéey bi yàgg naa door ci korite gi même chose dañ defoon action yu mel ni defoon nañ ko ci korite gi jaar nañ ci daara yi joxe nañ fa li ñu mën a am pour dimbalee ko ndonga daara yi ak sëriñu daara yi jaar nañ ci néew yi doole jàppale leen te du tey rek la commencé parce que ba Macky Sall dooree ba léegi ñoo ngi door ak moom di ko jàppale lu mu xam ak lu mu xamul te bëgg nañ nag mu xam ko mu xam ko bu baax a baax parce que waa Thiès xam nañu ni ñu taxawee. maaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Malick Dieng coordonnateur du mouvement les amis de Mimi Touré dooleel APR le président Macky Sall. waaw tey jii seen lëkkaloo bi ngeen lëkkaloo ak yeneen euh, mouvement euh, ndax loolu day wane ba léegi euh, taal bi daa teew a tàkk lan mooy seen taxawaay yéen. waaw suñu taxawaay mooy. dañu jug uniquement pour boole fédérer mouvement yi nga xamante ne nii ñi ngi fi di jàppale si euh, le président Macky Sall di dem ak seen mooy bopp mouvement yooyu lañ demoon seeti waxtaan ak ñoom bañ ko waxee ñu amagum pour l'instant loo gis benn lay doore am na ñetti mouvement yoo xamante ni taxaw na Thiès action développement les Halpulaar les amis de Mimi Touré dooleel après fat président Macky Sall pour di yëkkateendoo di dóorandoo waaw. waaw yéen gis ngeen euh, taxawaayu. mouvement yi njëriñam pour dooleel président Macky Sall waaw parce que bu ma neexee ma ne tey ñi créé ay mouvement mooy ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak président ba mu am 6 pour cent 6 pour cent yooyu sax maa ngi lancé un appel waaw ñi président àndaloon ba am 6 pour cent mooy mouvement yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk dajaloo fas yéene liggéey. te boobu ba léegi ñu ngi leen bàyyi en rad bu dul woon kilifa yi ñu tudd ñun mën nañ ne bàyyi woon nañu parti bi mais grâce ak leader yi ñuy àndal comme Mati ni mu ko waxee El Hadj Omar Youm madame Aminata ak ñeneen ak ñeneen bu dul woon ñoom kon parti bi heure bi waxatuñ ko. yéen liggéey sur le terrain lan la ñu nemmeeku na également président dafa am lu mu wóolu ci biir partem ba jox leen ay ndombo tànk ñu waaw loolu ñun président moom la moom la yoon may. muy fal di fool di koo neex képp ku fi mën a teg ñun accepté nañu sa nomination bi nga xamante ni président jox na la ko dañ la koy nangul waaye nag amuñoo ñoom benn problème comme ni ko Mati waxee dañuy liggéeyal président ñu ne dañuy liggéeyal euh, président loolu kese la waaw. tey message bi lan la ngir gën a dooleel parti mais surtout euh, fi ñuy jëm parce que toujours dañuy wax ne yaakaar mi ngi commencé di judd mais dañ ne département bi daal pour l' instant mooy xëcc wala commune bi yéen 6 000 5 700 voix coalition bi fi nekk jiitoo a ngi siy liggéey moo tax ñu bëgg dajale suñuy doole yi parce que de passage sax dama koy fàtte man maa soloon sama daal dem seeti Ousseynou Diouf waxtaan ak moom ba mu waxtaanee ak moom mu ne ma moom mënagu cee sori il faut mu waxtaan ak jigéenam ma ñëw fekk fi soxna Mati muy soxna su baax ñu yàgg daje nag ci ay milieu comprendre nga ma gis ko xam ne c'est une femme responsable bo ba ñu waxtaanee ñu déggoo looloo waraloon ñu pare pour. Euh, mouvement yi doon benn pare nañu nag comme nii suba gannaaw suba tàllalaat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba mouvement yi nekk benn ñu nag côté département bi ñu ngi saluer victoire bi nga xamante ni président Macky Sall am na ko ci. ndax loolu da ngeen ci am ndigal wala seen xalaat la rek ne da ngeen a boole mouvement yi. amuñu si dañu toog xam ne war nañu mën a booloo doon benn pour euh, jàppale le président Macky Sall.